di ñaana sam papa fa mu tëdd yàlla na ko dàqal fi mu jógee di ñaanal sama wasila Cheikh na Cheikh ya yàlla na yàlla yokk leeram te tagal ko ci keppaaru maamam moom ak waa këram gi. waaw lool chaque fois dama koy wax xam naa ne fii laa koy waxee tey mhm. waaye yàgg naa ko parce que c'est la première fois ma def ak yéen vidéo mais yàgg naa def ay vidéo ñu may laaj sama jaar-jaar may wax Mama Talibé Cheikh na dafa nekk saltige ci wàllu yaay astafurlah ci wàllu baay dafa nekk saltige ci wàllu yaay nekk it ceddo ci wàllu yaay ndax man sama côté yaay sama maam yi nga xamante ni ñoom ñoom meññi sama yaay ay ceddo lañu dañ daan wax li nga xamante ni ñëwagul ñoom gëmuñu lu dul seen doole ak seen martaba bi leen yàlla may ci wàllu baay ma nekk ci saltige sam papa yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu doon nit koo xamante ni ci ay jamonoom daanaka àdduna xam nañ ko ma donn nag li ma donn ci moom ak sama néegu ndey toog nag di ko def di sant suñu borom bu wér a wér nañoo ci lan ngay faj laay seetee wala lan laay faj. waaw li may faj man macha allah rabi bari na waaye am na nag lu ma mënta faj. Mm-hmm. ndax olof Njaay dafa ne daanu dajul suuf. nit mënoo toog rek ni mën naa lépp. Mm-hmm. mën naa lépp suñu borom dong moo ko yaayoo. waaye am na ci yoo xamante ni moom. Mm-hmm. dama ci tëgg sama dënn di ci sant yàlla. ndax suñu borom nee na bu bu ma la mayee sant ma. maanaam ñaan leen ma ma may leen sant leen ma ma dolli leen kon suñu borom bu la mayee danga koy sant ngir mu dolli la mbirum faj nag maa ngi ko ciy sant ndax ma damay faj jabet dama koy faj ba mu set ci kattanu yàlla waaw bu ma la fajee 3 mois te demoo xool sa jabet mu nekk zéro ñëwal ma delloo la sa xaalis. barke Cheikh na Cheikh Sadou bi damay garanti jabet dama koy faj AVC boo ko defee suñ la dompatee nga yëg ko wala buñ la jamee paaka nga yëg ko boo ñëwee ma faj la. ci kattanu yàlla même boo fi nekkul sax dama lay yónnee sama ay frotté nga koy jël ni ma la ko waxee ñu lay tàngalal ndox la ci defal xorom ngay sangoo ci kàttanu yàlla sa sidd di jàppoon yëpp day bàyyi incha allahu rabbi jigéen ju amul doom musul am doom xool nañ la xam ne say trompe bouché wul sa borom kër bi ngay seel mënu yoom amul problème ci kattanu yàlla boo ñëwee dama lay faj même bu mënu yoom oyofee boo ñëwee ma faj la incha allahu rabbi moom laay jox ay garab muy naan defar mënu yoom ci kàttanu yàlla nga mën a jàpp grossesse. dama koy faj. damay faj rab dama yor ay xàmb yor ay sangat damay faj rab musuma nangu nag toog sax ci télé di wax ne damay faj rab parce que léegi lu dal nit ñu ni rab la rab la am na yu bëri mi ngi dal doomu adama te du rab hmm. waaye rab ci suñ jëm bopp dama koy faj incha allah rabbi ndegam neex na suñ borom. mama taalibi cheikh na nee la doomu saltige la ak ceddo waaw sama wàllu yaay man maay satu Amet ak Souleymane xat jotu mundaara ak ay jotu mundaara sama wàllu maam man maay satu mbaafaan boo taxawee du fi séeréer ni mbaafaan ñu yóbbu la ba fa nga jëm man ragaluma fi ma jëm xam nga ku ragal fi mu jëm mooy kiy làmbatu ak ki toog ngir bëgg dara certes toog naa ngir bëgg dara ndax ku nekk li ngay liggéey mooy sa sutura waaye li may def làmbatuwuma ko man li may def dama koo xam maitrise ko te di ko def incha allahu rabbi su fekkee yàlla dogal na nga nekk fii ci biir réew mi jàng ba yor say dossier wala nga def demande emploi d'emploi noo fexe ba am parce que am na ñoo xam dañuy def demande d'emploi ñu xëcc trois lee dugal ko fa un an deux ans mu naan kenn woowoogu ma maa ngi xaar te demande bala nga koy def da nga ko war a xool def ci ay ñaan su fekkente ni tamit def nga ko pate defoo ci ay ñaan soo ñëwee incha allahu rabbi dinaa la ci jàppale bu dee ci biir réew mi la yaa xam contrat bitim réew yaa xam contrat mi ne yaa xam kayitu réew ma yaa xam lu mu mënti doon mu leer la ni mën nga ko am te dafa dëgër ci yow boo ñëwee ci kàttanu suñu borom dana la jàppale incha allah. impuissance moom dafa bari premier cause mooy lekk yi waaw alimentation bi yi ñuy lekk ni gàncax gi gaawee ñor ñu gaaw koo jëfandikoo. noonu la tële gaawee bi ci topp mooy góor ñu ci bëri dañuy fowee seen bopp avant ñu am soxna di masibé wu xaw ma noonu koy waxee waaw kay ak tamit tubay yi nga xamante ni du ko takk bu yegg góor gu dul takk tubayam ca kaw bala moo diga tële wax naa ko ki dem da gis xale bu ndaw l'âge de 30 ans mu ni la man su ma séenee jigéen sax bala maa dem ci moom pare naa c'est feebar la parce que xale yi dañuy toog di masibé wu ak di seetaan film yu bon yi xam nga li ma la wax gis nga wax naa ko à chaque fois kilifa yi may seetaan nañ ma baal jigéen du añ du reer dessert la te dessert la boo xam ne sax waroo ko jël chaque jour mais xale yi léegi dañu jël jigéen def ko comme ngelaw fu mu leen rombee ñu naan su ko defee nag da ngay dem ba toll ci takk soxna dootoo yëg sa bopp wala ngay gaaw a yëg sa bopp yaa ngi dégg wala boo takkee soxna doo ko mënal dara masibe boobu ñuy wasiw day delloo seen awra yaa ngi may dégg te day tax ñu gaaw a évacuer yaa ngi may dégg kon xale yi nañu bàyyi masibe wu gis nga dama ko à fois la maam daan bañ ku ko bañul gis la maam daawul gis bu njëkk ba ni ngay mayee sa doom bu jigéen mu tëdd fees dell noonu la sa doom bu góor di ñàkk a xamee jigéen ba ba muy am soxna waaye léegi amatul léegi xale bu ci gimmi ci jigéen ngay fooy. man su fekkee ma sibéwu la mënuma ci dara loolu sa plaisir bopp la mais su fekkente ni da feebar naturel nga am impuissance te judduwaale woo ko allah rek boo ñëwee dinaa la jàppale yaa ngi dégg su fekkee ni da ngay masibéwu te nangu woo bàyyi aussi liñ lay tere man mënuma ci dara man li may faj mooy feebar yaa ngi dégg masturbation aussi dama leen di dindil ñaar am na ñoo xam dañ koy def ngir dañu am rawxaan dañuy toog sëy nekk ci seen xel te duñu bëgg a dem njaaloo nañ ma baal ci waxin ñu masturbé wu loolu feebar la dafa am lu la dugg dañ koy dindi mais am na ci ñoo xam ne seen bànneexu bakkan na ma yàlla jéggal ak bëgg lu bon moo tax ñu koy def dégg noonu produits produit bi euh, daanaka produit bi sax daanaka dafa jeex damaa nekk ci defaraat dafa dafa dafa seddagul moo tax soluma ko bu jigéen bi moo fi nekk produit bi bi pour jigéen la day yokk sa wenn yokk sa hanche yokk sa partie intime yokk la bànneex da ngay gis jigéen ñoom dañ naan sama ween dafa ndaw sama kanam dafa ndaw sama ginnaaw dafa ndaw samay hanche dafa ndaw kii produit naturel la karité maa ko togg gis nga ak samay plante naturel maa koy defar ku dugg sama compte TikTok tapé ma matal bi Cheikh na dugg ci da ngay gis ni ma koy liggéeyee yaa ngi dégg da nga koy jël soo ko jëlee am na lu ma lay wax nga boole ko ci li ma li nga ciy boole am na ci kër yëpp danga ko ciy boole jaxase ko di ko diwoo suba ak ngoon suba ak ngoon incha balaa po bi di jeex di nga gis résultat su jeexe na nga toll baax na nga arrêté te la xasee ba may yaram du ko jël su dee da nga bëgg a dolli nga dolliwaat waaw. bu góor bi aussi noonu la bu góor bi aussi da koy jël ménage ko ak li ma lay wax mu koy diw ci awraam suba ak ngoon bu ko diwee guddi gi mën na ko baña a teree sëy bu mu ko teree sëy maanaam waa kay bu mu ko teree sëy yàqu ci dara day tax sax mu gën a yokk efficacité bi ma leen na ñu koy jël chaque jour naan damay sëy ndax ma gis efficacité. waaw day day yokk awra day yokk awra si ak guddaay te day yokk kàttan te day yokk plaisir nañ ma baal si waxin bi waaw bu góor bi incha allah rabbi suñu prochaine vidéo dinaa ko présenté képp ku tàppee ma tiktok Mama Taliba Cheikhna euh, di nga ko fa gis incha allahu rabbi waaw Euh, man sama seet chaque jour dama koy wax dama naan man damay seetee pétaaw damay seetee carte damay seete ndox damay seete seet damay jàkkaarloog yow di la seetal di la wax looloo tax ma am fit ku nekk ba Europe sa tur sa turu yaay ma seetal la laajuma at laajuma date de naissance sa tur sa turu yaay ma seetal la wax la li nga xamante ni ci kattanu suñu borom du dañ waaw te mama taalibi Cheikh na nee na fii kenn moomul kenn. ku dem ci doomu aadama gisoo fa sa bopp kenn terewu la nga téye sa bopp waaye bu kenn gis ma Mama bi Cheikh na ci internet bi ba tax nga ni maire bi dafa jafe dugganteel ba tax doo ñëw parce que li tax ma di may wax loolu mooy man maa mën a assurer sama bopp ni kenn du ñëw ci man ni ma Mama Talibé Cheikh na seetal ma ma wax la li may seetee seetal ma ma liggéeyal la fayeeku la dara man du ma fayeeku liggéey man damay seet ñu gérer say sarax ma defala sa liggéey nga ut loo teg sama loxo ba nga gis loolu ma yéene nga jox ma ko loolu sañ naa ko wax ci télé maa moom sama bopp maa moom sama xam-xam man la ko yàlla jox dama ni man li ma yàlla may ba ma koy jox tàggoo ma fayeekoo ma kon duma ci fayeeku kenn damay liggéey jëflanteeg nit ñi ci ngor ak teraanga ak jom lépp lu ma am nag looloo ma ko may waaw. na ñi nga xamante ne ñoo nekk man ku ma woo dama lay wuyu man soo ma woowee su ma la wuyuwul sama dooma lay wuyu te bokk ne maire bi bu ma jàppul mun la xaar tuuti ma jox la ko samay numéro 78 295 62 85 77 194 52 77 110 19 37 855 21 14 mooy samay numéro loolu laay fi bi ak ñetti portable yi fu ci waaye woote da ngay jot ku bëgg kii boo duggee vidéo Mame Atta Alboury Chine mi ngi daw ci banderole bi soo wootee incha allah rabi danga may jot. Mhm. waaw loolu barki démb rek wax naa ko ci seen benn nattangoo mhm. nee naa leen élection yi di ñëw man su ma yéegee sama oto damay yéegal vitre bi ndax waaw ndax xam ga lu tax damay bañ ñu yóbbu sama nopp élection yi ku taful sa noppu ñu yóbbu ko waxantuma la ak nag nit mm-hmm. enlèvement yi bari na sacrifice yi bari na mm-hmm. man léegi dama yaakaar ni rey nit léegi c'est comme bonjour da nga xool nit ba mu neex la rek nga dem rey mm-hmm. pour lan dañuy wax seytaane mais yenn yi wax naa ko keroog ci benn télévision bu mag ma ni leen bëgg nguur wala bëgg tur jaru ray nit bëgg nguur wala bëgg tur jarul rey nit ci ndaw la ñuy defaree nguur lima ma wax à chaque fois lay daan mbër du dem ca làmb ja lay daan mbër du dem ca làmb ja mbër yi ngay gis ñi bëri yëpp xam nga lu ñuy sotte ko bayre ak muslaay ndax dégg nga bayre ak muslaay lay daan mbër ma mu ngi ca kër ga toog kon nag bëgg nguur bu mu tax ñu rey doomi jàmbur yi xoola ëmb ni mu wettee wasin ni mu méttee yar ni mu méttee ñu jékki-jékki ñu coppet sa doom doo nelaw guddi doo lekk doo naan man enlèvement yi gaw ma ko woon de mais dama ko gis dama ko gis yuuxu woy yóbbu na ko yóbbu na ko yóbbu na ko oto ba ni feef dem yoonam fekk këf na gone ga fan yi nag moom dafa mel ni dañoo rakkaaju mhm. amul sarax amul dara sëriñ bu la fi wax sarax dalay nax xam nga luy sarax bi nañ leen téye xale yi. ku ci yóbbu sa doom mu jàngi soo demee ca école ba neel maîtresse am wala museen bu mu fi génn te ñëwuma ku sa doom di génn nanga ko yab man nee naa ni France di jàngale numéro police tribunal ak sapeur lan moo tax jàngalee wuñ ko ñu ni ku la woo bu ko wuyu ku la laal nanga daw ku la yónni bul dem jamono toll foofu. ba jamono di baax doom doomu ñëpp la sa doom mbedd mi da koy yónni mbedd mi da koy dóor dañ koy def lu nekk te doo ŋàng mais jamono moo neexatul moo tollu ti garde nan leen garde suñu doom yi parents yi ñooy daw responsabilité yi moo tax lii lépp am añ ba pare tëdd ni gàng di nelaw sa doom ñoo nga di ko bu ma sonal demal fawi bu génnee buñ ko jëlee bul jooy wala xale bu tuuti l'âge de 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans nga bàyyi ko muy jàngee boppam ay 3 kilomètres buñ ko jëlee yow la nit da ngay waggar ci sa doom sënu doom kenn gisagu ko man nag lool laa gis. waaw xam nga sacrifice ak élection ñoo ànd parce que ku nekk da ngay bëgg ku nekk da ngay bëgg mais nañ ko teg ci sacrifice yu jaar yoon nañ ko teg ci sacrifice yu jaar yoon yaa ngi dégg man duma jël loo xam ne ku ko jox sama doom ma bañ ko ma koy jox doomu jàmbur sacrifice yi dina bëri man su may wax duma ma wax ak ñiy wut ñun citoyen sénégalais yi laay wax dañoo bëgg jàmm nañ leen saraxe galaas waaw suñ ko mënee sax altine sax alxamis bi ba yi di jàll nañ leen saraxe glace yaa ngi dégg kër gu ne benn glace bu fa génnee baax na nañ leen saraxe galaas man soo ma laajee samay saraxlu sedd man saraxeloo ma fas saraxeloo ma mbaam saraxeloo ma mag man samay sarax gerte la galaas ginaar amul lu ma ci munul am amul lu ma ci munul am yaa ngi dégg jàmm pour mu dellu si réew mi sedd guy na leen saraxe galaas ni ma ko waxee oon fii ci Coupe d'Afrique bi saraxeleen ndox mi saraxe ndox mi na dëkk bi tooy am sama naataangoo bu génn ni soomi na saf suukar ma génnaat ni wax na dëkk na soomi saf suukar man duma bañal kenn dëggam ndax ku nekk ak la la yàlla may man du ma jël mënu jël wërsëg kenn kon damay gëm ni man kenn mënu jël sama wërsëg te dañuy wax ni loo bañ bañ golo waxal ko génnam gu gudd man su ma gisee ku wax lu baax dama ciy ànd ak yow su ma gisee ku def lu baax dama ciy àndak ak yow ba mu génnee ni soo mi na saf sukkar dama ni wax na dëgg na soow mi saf sukkar waaye dolli leen ci ndox mi na dëkk bi tooy waaw altine ak alxamis altine benn galaas alxamis benn galaas ba élection yi passé dëkk bi sedd gis nga élection ren yii ah, yàlla nañu yàlla dolli jàmm. élection lan la député. xam nga euh, présidentielle ñëwagul. gis nga élection député yi ba présidentielle ba 2024 dëkk bi day baax. parce que dëgguwuñu. gis nga nit. looy def na dëggu dañ may wax ni ma seetkat yi teg seen layu naan dañoo mën a seet dañoo mën leen dañoo mën a seet piir képp ku teg layoom dafa mën a seet parce que man damaa dëggu mm-hmm. man damaa teg sama layu bii man dama gëm ni man damaa mën a seet mm-hmm. kon képp ku teg layoom damaa gëm ni dafa mën a seet mm-hmm. kon nañ leen dëggu ànd day dëggu tey su ma nee damay ànd ak yow tey fayal la président gis sa collègue bii ni ko xam naa biiram xam naa biteem dañ ko xeex dëggu amu fa ànd day dëggu te ni ku nekk soo bëggee sa diggante sa moroomu nawle dem na nga téye sa bopp la koy téye sa nawle man dama ko à chaque fois dama naan man taalibe yi ma yàlla jox ak client yi dama am ay taalibe am ay client am ay fans ma décrire la ko nag pour mu leer man dama am ay ñoo xam ni dañ ma fan moo tax ñuy ñëw ci man dafa am ñoo xam ne dañ ma gëm dëgg moo tax mu ñëw ci man dafa am ñoo xam ne gëm nañ ma seen soxla moo tax ñuy ñëw ci man bu fajoo pare nañ ñoom ñooy client ñi ma gëm bëgg ma ñoom ñooy samay taalibe ñi nga xamante ni dañ may bëgg ñoom ñooy samay fans dama koy wax à chaque fois doomu aadama lépp looy def da ciy dëggu nit boo dëgguwul mënoo am dara yaa ngi dégg wala lépp loo am ci weerante lay mujje nan leen ànd ñu boole xol yi ñu tàppe ko mu doon benn suñu Sénégal gi ñu ngi koy bëgg a yàq ah parce que pays européen boo gis da daan yàkkamti vacances jot ba mu daw ñëw Sénégal ngi mhm. doon liggéey at ati nu koy artisanal la ñuy wax xaw ma liggéeyatuñu parce que gisatuñu touriste parce que touriste yi ñemeetuñu duñ dem ci dëkk bu ñuy jamaatee mhm. duñ dem ci dëkk bu ñuy rayaatee duñ dem ci dëkk boo xam ne dañuy foqati sa alal sa xol di baxta doo ko mën a jot mhm. ñun ñoo war a toog ñu ku ne toog sa ruq mën a kan ñu xool ñu na kan